leen ko hmm. xool xool xool leen hmm. deuxièmement euh, benn xoos lokat fa la di xuloo fu loo yam loo et damay dem ba même au niveau de la fonction publique il faudra que ñu xoolaat xam nga damay tudd Senghor ba gars yi dama tuye un nostalgique hmm. c'est que quand il construisait l'État c'était complet Moustapha est-ce que tu sais que grille salaire yi dafa amoon règle dafa amoon kii nu mu tudd ay rapport yoo xam ni ki doon hiérarchie de ba hiérarchie à un qui culminé mais day am logique c'est des paramètres qui font que am na une certaine justice non xam nga yooyu dëgg réew mi. Hmm. wax dëgg day metti quoi. <laughs> donc yooyu la xoolaat. que tu ne crées tu supprimes les situations de rente et de prébende léegi ñëpp tolloo. ay intérêts yooyu menacé la aussi. dama oui man je menace rien. Ah, damay je pose des hmm. problèmes. il faut qu'on y réfléchisse dans une sorte de réflexe de survie aussi non doo leen xañ loolu. non doo leen xañ loolu. kiy gérer xaalis. dafa rëy il faut que nga préserver ko munoo ma jox ay milliards ba pare. di ma politique loo di ma politique loo. mais boo sa base ñàkk par exemple. non et puis d' abord du ma la politique loo mais kii jox milliards aussi te moo koy wuti moo koy liggéey il faut que mu am lu ci ruus pour moom. fonds commun bu leen fàtte ni dafa amoon vocation fonds commun du du lu bees. Mhm. Quand on faisait les fonds communs, ministère des Finances, ministère du Commerce ak tous ces ministères à régie et autres qui ont des régies ak yooyu dañu xam ni ka fa ne war waru ko la ko war waruma hmm. donc puisqu'il a un plus que moi il faut que me préserver ko de la tentation hmm. il faut que je le préserve ci ndóol et yooyu kon du ko dindi mais danoon am salaire da nga daan jël le salaire le plus ba de la fonction publique ba salaire u ministre tu sais c'était paramétré hein? le ministre le ministre ba deux mille c'était le salaire le plus élevé de la fonction publique xam nga ñaata la woon matul cinq cent mille donc boo gisee ay fonctionnaire milliardaire loolu lu mu lay def Sénégal fii kooku daal yow donc yaa ko fi jëlee tudd dama lay wax ni ministre la la wax ba deux nga xam ni indemnité l'État de l'a pas logé il avait deux cent cinquante mille francs salaire ñu def ko te suñ ko joxee sa dafa c'est imposé dañ koy dugal ci salaire bi impôt yi jàll ci donc cette ces normes là de de de de ñeente boobu ngay dindi inégalité boobu nit ñi di sentir ci soo xoolee salaire yi ci fonction publique boobu injustice la agents municipaux yi aussi di vivre parce que dañu def ni sénégalais yëpp dem laaj xam nga Sénégal les libéraux la ñoo gën a gaaw ci d'accord euh, revendication salarial la seule chose qu'ils oublient mooy soo joxee soo joxee revendication pare il faut que payer mais ñoom su grève bi méttee affaire bi yàgg na tar na rek. day il faut des concessions. mais waaw boo dul defal la preuve. Euh, euh, les employés municipaux ñi nga xam ne aujourd'hui ñoom ñoo nekk au fronton du développement local ñoom ñoo nekk ak citoyens yi ñu ngi ndóol ndóol comment on va le régler je pense que état bi na respecter ay engagement li nga état soo xasee wax waaw waaw la parce que dañ laa wax ni bala ngaa wax waaw xalaatal ndax mën nga ko yéen ñii dégg. tout amul droit bañ koo def ah dégg dañ naan le oui dans de sens que quand que celui qui l'a dit peut dire non. loolu lay jëriñ quand tu dis oui tu as dit oui on t'a pas mis le couteau sous la gorge man gouvernement gis nga ñun xëy na dañu dëgëroon bopp rek ñun socialiste yi parce que parfois on préférait aller à l'épreuve plutôt que de wax waaw yoo xam ni mun ñu ko def parce que syndicaliste bi il est dans son rôle. il doit revendiquer revendiquer mais yow miy gérer la Walf la xam nga ne du leneen nga ngay jox sa rédaction ak say journalistes. Mhm. parce que xam nga li kër gi àttan. ah kooku c'est la réalité donc euh, dama man Khalifa Sall danaa xool lan mooy tenaawu yëf ki ak lan mooy nëwu problème bi et incha allah. vous waaw alors euh, ñu profito ci minutes yu mujj yi ñu dese waxtaanee. économie ku ne économie ne forcément emploi mais bala may ñëw ci emploi wu xale yi ak mbay mi ñu jeexal ci loolu dafa am un boo xam ne marqué na quand même le début de la campagne kenn ci candidat yi ku wax ne Sénégal dafa war a génn ci franc CFA nga bokk ci wax ne njuumte la lan lan moo tax. ah ma defe ni boobu tëjoon nañ ko. waaw mais c'est intéressant. ah li may liir boo li may liir boo dafa mel ni débat intéressant quand même. oui parce que xam nga lu tax xam nga moo ne dama toujours ni euh, yor réew dafa xaw sew développer réew dafa xaw jafe économie dafa doon lu ne parce que ñun ñëpp ak suñu def ak lu ñuy man et sooy def économie dafa am yoo xam ni mooy déterminer sey décision ak choix. aujourd'hui réew yi yow kott doo nekk kenn mënatu ko c'est-à-dire vivre en autarcie Cuba war ma koon sax tudd mais parce que am na lu ñu am loo soxla ci biir mais li nga am yow ci biir da nga ko yóbbu ci biti donc par A ou yow ndar képp rek mënul ne benn la mondialisation mënatu ko mais surtout règle économique yee ko mënatul ñaar ñu ni booloo mooy doole saa na sax yu amul seen mone mais am mone dafa am lu mu supposé mone du këyit bi rek de laajal réew ñi ko essayé woon mën nga xam nga soo yoree sa imprimerie rek di mmh. defar këyit mmh. këyit këyit lay doon du xaalis parce que xaalis bi réew mi comme ni ma la expliquer jënd ak jaay bi génn beeg dugg bi dafa am njëg njëg boobu monnaie bi la damay expliquer ni UMOA moo fi amoon union monétaire ouest africaine bu njëkk lool rek la doon def xaalis rek banque beeg yëpp yëpp mu doon à la limite sax syndicat dafay mel ni coopérative la bu ñu bokk suñu réew yëpp suñu mën-mën ak suñu kàttan ñu boole ko nag amandoo këyit bi tax ñuy dem ak dellusi di jënd ak solidarité boobu par les péréquations bi muy permettre moo tax généralement réew mu ko mënul da ngay di booloo pour dajaloo parce que économie tey day neex suba mu naqadi te li sa waa réew soxla quand tu as une économie extravertie comme suñu bos da ngay jëndi blé da ngay jëndi beurre da ngay jëndi ceeb lépp da ngay looloo loo koy fayee. non mais est-ce que France CFA aussi wanewul ay limitam objectif non non ah man di limite bi ma ci gis. Mhm. parce que li ci li ñu doon révolté ñu ñëpp. Mhm. mooy suñu réserve de change yi nekkoon. dañ na ku dañ na yéen it da ngeen fàtte Talon était président de la conférence des chefs d'État que biñ ko dindee. Mhm. xam nga lan moo des. mooy parité bi kii c'est-à-dire voilà convertibilité. convertibilité bi te convertibilité bi. xam nga lu tax amu am njëriñ. bis bu suñu économie développé ba mënal ko suñu bopp soxlaatoo ko ci kenn mais réew yi marogoog ñu bari mhm. dañuy am adossé wu maintenant à au manœuvre monnaie forte dollar parce que ñaari façon la soit nga bokk ak réew moo xam ne dangay def parité fixe nga ni sama ñaar dërëm CFA bi dana doon fistinu euro fix jeex na dootul changer beneen bi nga def fluctuation flexibilité quoi selon les moments selon les moments booba nag il faut nga mën ko parce que su fekkee sa économie demeewul noonu nga arrimer ko ci euro wala dollar wala yen dollar danaan nii de danaan nii de te ceeb bi ngay jënd diwlin bi ngay jënd sa costume bii nga solo tissu beeg dàll yi nga jënd bitim réew la génnee dama ne la même cure-dent bi sax bitim réew la jënd la ngay jënd fële sa CFA bi du ko fay soo koy jënd da koy fayee dollar baa nga fayee ko euro mbaa nga fayee ko yen mbaa nga fayee ko yuan en tout cas monnaie yi nga xam ni ñoo am doole doole ba mën a boot échange internationaux yi seetlu woon ni ku ci am doole rek dugal sama Chine au avant sa monnaie ne pas convertible mais bi mu demee ba dëgër dafa ni man léegi damay dugg marché kii bi. donc am moo ne ba euh, du lu bon mais il faut nga dëgër d'abord. il faut nga mën ko. d'accord il faut nga mën soo ko bëggee wax ji gay gudd gàtt. kenn ban laa d'accord CFA bi. c'est vrai que soo xoolee ni mu tudd tur bi ñu dindi ko c'est pas grave man li ma d'accord mooy mécanisme de solidarité bi am entre les pays de l'UEMOA et les xam nga avant sa franc CFA da doon dem ba Afrique centrale sax. léegi la ñu dindi convertibilité bi xam nga lu tax parce que yow dërëm boo fay jënd mburu sa lettre K bi réew mu nekk dafa am lu la identifié mburu mi ngay jënd farine bi ngay jënd yaa koy fay mais su péréquation beeg kii bi jotee yaay fay l'avantage d'être ensemble mooy soo mënul fay nag ni ngeen booloo ñi ñun ñëpp ña ca des dañuy booloo permettre la nga fay mais kenn mayu la ko parce que lettre K mille francs K dix mille francs K bu génn rek xamal ni Sénégal a koy fay. d'accord euh, euh, Sénégal toll également ci loo xam ne marqué na ko année yi certainement le prochain président faw loolu mënu cee euh, bañ a liggéey mooy ndaw ñi ak seenum xëy. Mmh. bari ci ñoom tey jii ñu ngi jël gaal yi ñu naan ay millier des na ci Méditerranée bi am na ñu ne mbay mbay. mbay ak industrie mën na tax ñu fixé ndaw ñi. waaye yow bu ko fixé da kaa réglé xam nga dama ni euh, bu jiitu mooy euh, suñu système éducatif moo joxul dignité formation professionnelle parce que du ñun ñëpp am xam-xamu jàng soo sa koñ sa waa koñ laa ñaata ñoo dem bac ñaata ñoo dem bac plus six ñi ci des c'est pas parce que amuñu xel. mais am na fu yàlla yamale woon seen xel ñii bëgg ñu jàng ñii fii dañu am limite kooku na mu mënul am chance su jàng noonu la loxo yi aaye. noonu la loxo yi aaye sa téléphone paanoon léegi boo ko joxee. léegi mm-hmm. nga la le mm-hmm. kooku loolu la Sénégal exploité gul xoolal tey yaa fi waxoon sànq digital. àll bi xale boo fi jox téléphone mu foye ko te ko jàng wax ma rek fu mu ko jàngee fenn yàlla moo ñu may xel boobu donc loolu il faut que ñu xam ne delloo si formation professionnelle fulaal ko faydaal ko menuisier bi mécanicien bi mason bi soudeur bi il est d'égale dignité que docteur bi def huit ans de jàng mm-hmm. et il a sa part et qui est décisif dans la construction du pays mbay mi sàmm gi napp gi Pierre ça résorbe euh, yaa wax ñuy émigré xoolal le profil de ceux qui migrent xoolal rek la population ñi bëgg. il vient du monde rural bari. yaa ko ñu ma wax. d'abord ñooy def exode rural. léegi xew na ba pare léegi ñu jël gaal. le garçon il met sept huit millions pour dem États-Unis sept huit millions mhm. foo ko dugal buntu feeñ fii soo gëmee sa bopp bëgguma stigmatiser mais am na ñoo xam ne ci keesu pomme bi ñuy jaay wala ci feeraay bi ñuy jaay soo làmboon seen poosu caaya di nga ci gis loo xam ne euh, kii bi nu mu tudd maîtrisard bi amu ko. c'est absolument waaw ndaw yooyu comment les fixer dans le terroir. d'origine man il mooy li mu la wax bay dunde bay dundal bay jëriñu. il faut que les gens vivent de leur activité. ki daan napp ñun ñi yaroo taatu géej yéen ñii non la ne ñi yaroo taatu géej bu njëkk su gaal daan teer léegi jën yu sew moo ne ñun politique yi am ci responsabilité parce que ñoo vidé suñu géej c'est des choses sur lesquelles faut revenir mais surtout mbay mi nag dama la wax juróomi juróom wala ñeenti ponk yu mag la Khalifa Sall président mooy jëlaat aménagement j'ai dit je mets un mille mille milliards par an dans l'agriculture xam nga lu tax soo jëlee ce que te coûte l'importation ci ceeb ak diwlin c'est mille cinq cent milliards tu dépenses mille cinq cent milliards pour importer lu sa njaboot dunde dunde tu prends mille milliards rek benn nga jëlaat aménagement bi parce que li béykat bi amul li mënul li mu mënul ñeenti yëf la mënul aménager surtout kii bay ceeb soo demee Casamance soo demee euh, Kédougou soo demee fleuve mënul aménager mënul indil boppam ndox mi état moo ko moom mënul bopp jox boppam semence bu baax mënul jox boppam engrais bu doy mënul jox boppam euh, jiw bu doy yooyu il faut que état bi nangu defaroon ko pourquoi moo amoon ay Sahel hmm. yéen a ngi fàttali ko ay Soda Agri tu sais quand tu allais à l'Anambela gis nga ceeb bi ngeen di xëccoo fii la riz siam bu sew riz indien boobu basmati. Mm-hmm. Ah, ah, ah, la Sodagri faisait la même qualité de riz mais xoolal léegi réew mi ban usine fi ban société fi ne parce que mbay mee dee. oui ñaata usine diwlin nga amoon. Ziguinchor Diourbel Dakar fu ne li xew yi ci àdduna ci économie àdduna mooy jël sa matière première exporter ko loolu moo xew yi il faut transformer <coughs> de la valeur moo tax su gars yi def pétrole beeg gaz bi nii mais pétrole beeg gaz bi man de je suis contre la budgétisation suñu xale yi di màgg di jo ñoo ñoo moom pétrole ak gaz bi nañ dem ci mbay mi defaraat ko nañ dem ci sàmm gi defaraat ko nañ dem ci napp gi defaraat ko nañu fexe ba euh, euh, digital bii ngeen di wax hmm. l'économie numérique là mais c'est une formidable opportunité sénégalais yàlla ko may xel dafa am moyen buy dox wax hmm. donc euh, l'économie numérique c'est comme l'économie culturelle waxuñu ci mais tu as des niches d'investissement yoo xam ne soo ci dimbalee ña fa ne parce que lu ci ne il faut nga am ay modèle Youssou Ndour rek ñoom Sidi Lamine ak ñooñu mhm. nga xam ne ñoo duggoon ci communication wane nañ nit ñi ni foofu bunta la musicien bi mais day dundal léegi bu njëkk xam nga daawul dundal kenn mhm. léegi day dundalaate mais nan ngay fexee ba musicien bi ak tout ce qui ont dans dans la culture peinture ak lépp lépp lépp ba mu dundee li muy def c'est ça le challenge mu doon économie économie culturelle économie numérique xam nga waxuma la ay di non économie laa la c'est-à-dire li mu wunda li muy mën jur loolu lan la ñu mën a amal njëriñ loolu mooy problème suñ ko exploité suñu xale yi daañu réserve chomage parce que soo ñu jàngee formé am métier nga wutal leen opportunité ñu toog soo demee waaloog fuuta xale yi dañ naan la ñun duñ dem ci mbëkk mi suuf si nekk fii te kenn joxuñu ko suuf si nekk fii te kenn aménagé wu ko les grosses euh, puissances financière la nga xam ne dañ lay jox suñu suuf si gën a baax ñoom ñoo yor ndox mi ñoo yor liggéey aujourd'hui tous les paysans sont devenus des ouvriers des ouvriers da ngay gis ñu dëkk foofu xam nañ ko jigéen bi day yeewu fajar dem ci toolu waa ji ñu fay ko deux mille francs voilà le problème tu réduis ta population ah ñëw ma ko tudd sax servage. dañoo rey mbay mi carrément. mais boobu laa la ma ni man pourtant bu ñu déglu le discours officiel on a l'impression que Sénégal. libéraux gëmu ah, waaw absolument non non libéraux yi gëmuñu mbay. ñoom li ñu gëm gis nga ko pont ak autoroute ak yooyu. alors que la première infrastructure dans un pays c'est le cadre nation état la deuxième infrastructure dans un pays c'est l'être humain la troisième infrastructure mooy nga dundal sa askan manal sa askan bay dunde bay dundal bay jëriñu c'est sa man loolu laa gëm et pour sa je mettrai tous les moyens qu'il faut incha allah. Mhm. léegi justement sax nga ko compté financé. waaw c'est par secteur xam nga nag réew mi lépp yom jafe na ba mu des am xaalis. ah oui. am xaalis jafewul ban xaalis ngay am kay xam nga posé wu leen dette ci économie yeeg yëpp dem demu ñi ci dette yi mhm. Mhm. mais aujourd'hui nous on est un pays attractif ji nga suñ doon jigéen di jaayu du ñu lamba on a une bonne signature quand on voit le profil de la dette on a un petit souci mm. parce que euh, les libéraux ont, ont, ont beaucoup privilégié ñun on avait fait le choix des dettes IDA ah c'est-à-dire des dettes long terme avec des taux d'intérêt de 0 à 1 2 pour cent quand tu sur le marché c'est-à-dire nga soxla xaalis jooni jooni jooni teew mi teew mhm. xobet xobet ah, ah voilà xobet xobet dafa am njëg su la waroon dikkee deux pour cent un pour cent ah parce que banquier koy jox wala fonds d'investissement bi la koy jox wala partenaire bi la koy jox il te le fait à ses conditions moo tax su gars yi di wax affaire monnaie bi dellu si loolu ak ñi naan dañuy couper ak partenaires yi dañuy nax seen bopp on est dans la mondialisation da ngay soxla nit ñi nit ñi soxla la ki nga soxla partenaire financier bi yaa ko seeti seet si wula yow mii yaa soxla xaalisam man soo ma doon lebal Pierre Edouard nag may lebal selon tes conditions mm-hmm. parce que bëggoo perte sa xaalis lebaloo ma sa xaalis parce que sama bët yi dafa rafet. sauf là lépp mënul ñàkk. waaw pour un état. absolument mhm. lépp moom mënul ñàkk. lebin bi ak ni ngay lebe mooy problème. une bonne dette comme on dit. absolument voilà le problème mais ji nga dette ak déficit c' est des leviers dans les politiques de développement réew mu amul déficit amul fenn États-Unis ñëpp a yem parce que déficit bi moo lay permettre moo lay jox ay marge quoi de manœuvre dans la. gestion de ton budget ak la dette c'est un appoint le le le le déficit c'est un levier qui te permet selon que gisoo moo tax dans toutes les unions dañuy am maximum fii waru weesu trois pour cent ou quatre cent je me souviens plus de lieu moi là union européenne c'était trois pour cent déficit bi waru weesu trois pour cent parce que c'est des convergences économiques qui font que même su a mënandoowul su ñii tëlee ñii jàppale su ñële tëlee ñii jàppale cette solidarité là impose un code de conduite mu ngi mel ni ñuy dawal ñuy joor gaal dañ ne la wat gaala yëgoo c'est la même chose. est-ce que da nga compter pour financer ce programme. si c'est nécessaire mais de la bonne dette parce que nag dama bëgg ngeen bañ fàtte ni ñu mi ñu fiy jógee ñun. on avait presque une dette de milliards léegi yaa ngi ci ñaata. di euh, dix eh eh mille milliards. quatorze milliards c'est pas la dette qui est importante c'est quelle dette c'est la qualité de l'endettement qui est le problème aujourd'hui c'est-à-dire que l'État est obligé parfois xam nga li ñu naan suule bu ki su bu ki suule oui c'est ce que fait l'État. lef fii pour fay fa mooy mooy mooy alaxira bi la nga yóbbu moom <laughs> fay rek munoo ci dara donc waa ji bi nga lekkee xaalisam laa du rees da koy fay soo ko fayul da koy goqi donc la qualité de l'endettement est importante c'est pourquoi on insiste souvent en, en cette matière sur le profil de la dette comment tu t'endettes lépp neex na mi ngi mel ni rek say suñu yaay yi selon ku ñu dem ci tour bi tontine bi hmm. PAMECAS wala banque gis nga ñett xam nga bu ci nekk taux bi bokkul. même les même y a même des salariés qui font ça ah. préfère dem si mutuelle plutôt que loger. moom laa lay ko soxla donc il te prête selon ses dama la wax ni même jànq bi ngay liggéey su fekkee yaa ñëw pour soxla ko pour recruter ko. elle te pose ses conditions. su fekkee moo ñëw di wut si liggéey yaay posé say condition <laughs> c'est la même <laughs> mi ngoog Khalifa Sall ñu bàyyi la nga tàggoo ah man man nag kontaan naa trop <laughs> vraiment tout damay dañuy uh-huh. waxtaan bu am njëriñ la uh-huh. réew moo war mm-hmm. njiitum réew la nit ñi di mm-hmm. le président Diouf lui parlait toujours de serviteur mm-hmm. parce que njiit dafa rëy moo tax ñuy wax boroom réew sax dañu xam lu ñu wax rek liggéeyal askan moo metti moo tax ñu liñ ñu jàngal pour liggéeyal réew mi mooy liggéeyal réew mi mais ak waa réew mi ak ngir réew mi ñett ñii la ñi nga triptyque bi toujours dañ la koy fàttali mm-hmm. parce que ay nit nga jiite mm-hmm. ay nit la jiital bis boo ko fàttee ñu wan seen bopp wala ñu fàttali la sa bopp donc ñun dañu bëgg a servir réew mi on a cette culture et le culte du servir est ancré en nous ñu gëm ni élection yi je suis le mieux placé pour jubaatle askan wi pour def les réformes et les ruptures qu'il faut pour que ñu dem ci kanam j'y crois Et je suis certain que les Sénégalais me feront en m'élisant président la République le 24 mars. jërëjëf ñu ngi lay souhaiter bonne chance en tout cas merci beaucoup euh, Khalifa Sall ah candidat de la coalition.